Kadugi, gi ki nga xam ne victoire novembre. Victoire le 17 novembre. Et tous les amis ici présents, Debout de wax Amadou tête de liste départementale nattable wu ma ne le 17 novembre yéenay gagné dafa am gagné ak gagné dama bëgg Thiès bu ngeen yokk ci deux ba trois ba quatre ba cinq députés sur la liste nationale te yéen Thiès yi man ngeen ko waa Thiès man ngeen ko di ngeen ko def Malick Gakou 1960 élection bu am candidat yi dañuy wax rupture te rupture boobu ba léegi amagut ma jàpp assemblée bii ñëw ak liste Pastef dirigée par le président Ousmane Sonko assemblée puis di du dina rupture du Sénégal le 14 octobre référentiel politique publique Sénégal 2050 à discours puis à Dakar Arena Le président Ousmane Sonko def ne ñëpp ngeen dégg Sénégal jël un nouveau tournant elle avait terminé son discours par le mot révolutionnaire. C'est une révolution qui démarre, qui sera inarrêtable. merci beaucoup Mamadou Diop Job de nag dañuy woo ki nga xam également, depuis ce matin, il est avec nous. Vous me dire le cadeau. sama gars yi namoon Nimanda me won kichi kinawa. Le président Ousmane Sonko. président. Kuy daagu daal na nga daagu fan la nobe. Mais xam naa ni. no, xam vraiment di am mbégte di fi ak le président Ousmane Sonko ànd ak tous les leaders li nga xamni ni fi ngeen fii ñu xam xam ñu xamé lenn képp soxal ñu muy Sénégal jëm kanam Sénégal jëm kanam bobu mom le président Ousmane Sonko tambali avec le président de la république Tambali Bogis, gis day toll jamono Askalui, La askan wi askan wi jóg boot mbir mi def ko seen mbir def ko Yité sore fi nga la Sénégal vision 2022 wax kenn mënul bañ ci Sénégal ñu jëm kanam dafa am lu xew le 24 mars moy sénégalais yi dans leur écrasante majorité ont donné jox le président de la république Bassirou Diomaye Faye une majorité bi nga xamni kenn tablé wu ko le Premier ministre, le président Ousmane Sonko di dérouler un programme bi nga xam ni jéego yi ku ne yaa ngi koy gis mais nag lépp loo gis askan wi bu leen laajee lu nit tàmbali ñoom ñoo ko war a mottali kon mottali bi kañ la mottali bi kañ la mottali bi kañ la mottali bi kañ la vous li war député député madame Aïde Mbodj 150 la hein? vraiment Dylan leen Dylan sant nous mobiliser pour une victoire éclatante au soir du 17 novembre vous avez fait ñu majorité bi nga xamni kenn du ko le président Ousmane Sonko je vous remercie. merci beaucoup merci beaucoup de Fall. tata vous on a partagé des moments de grenades lacrymogènes à Ziguinchor. Constance. Salam Yes. fii terre de refus la. fii mooy le Sénégal en miniature. la. fii la ñuy décider. te Thiès décider na tey. waaye nag Ousmane Sonko. jàppati nga gaañi ci sew sew de. amuñu ñoo xuloo lañ doon xaar xaste lañ doon xaar dajale nga bañ leen doo ko def ñëw leen ci débat réew ñëw leen ci luy jàngal xale yi ñëw leen ñuy def alimentation à non ñëw leen ñuy joxe électricité ñëw leen ñuy defal financement nga ni leen nañ wàcce financement yi à la jot ci bu mu am il un financement clanique ñëw loolu ci nag xam fi ngay teg man de xaw ma gaañu ni ñuy def ndax amuñu argument focus le 17 le 17 merci beaucoup Tata Pastef si vous regardez la liste de Pastef c'est une liste qui respecte l'équité sociale qui respecte l'égalité des chances qui doit xamante représentée représenté le candidat des non-voyants de Cheikh moom day ñëw jël On vous l'a annoncé, cette Assemblée nationale sera une assemblée de rupture. Elle sera une assemblée qui portera les Merci beaucoup, chef. Merci d'être là. Assalamu alaikum, wa jeunesse patriotique de caisse. Assalamu alaikum, notre Thiès. Dans ma bir, il y a désormais les parce que

loolu doyul lolu doyul parce que amna na lu ko ji moom la ñu proposé le Sénégal entier muy un Sénégal souverain juste et prospère waye ñu yokk ci un Sénégal inclusif loolu feeñ ci référentiel le ko pour jëmmal ko et au président Bassirou Diomaye fay une majorité écrasante le 17 novembre pour que nous mën le Sénégal enfin sur les rails du développement je vous remercie. merci beaucoup merci beaucoup merci Maintenant, nous allons donner la parole à Serigne Fallou Fall de Ndiaye Sirah. mu nekk beaucoup ci ont yi nga xamante de nous rejoindre dans cette campagne trois minutes. kon kilifa gi nee dal waxi kilifa asalaamualeykum mbokki cees asalaamualeykum mbooloo mi nga àndal. soo ma mayee ma nuyu suñu. mais suñu frère Mamadou Diop Decroix. mais suñu responsable président Ousmane Sonko ñun def feneen lañu nekkoon nekk fa ci ngor nekk fa ci fulla waaye yàlla mi nga xam ne mooy dogal

jàppale leen xam nga lu tax xam nga lu tax Sénégal moo ñor te nu ca gox ya dëkk te suñu intérêt mooy gox yooyu moo tax bu nu gisee koo xam ne dafa jub day jubal day jubbanti bu nu wooyee dañuy ñëw ànd ak moom fas yéenee liggéey Sénégal nun nag ay jullit lañu yu gëm yàlla fas yéene wuñu gaa dogalu yàlla nu di ko xeex xalaatunu ko suñu sëriñ Seex Ahmadu Bamba dafa wax ne yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manata fa wa sabru moo tax yow la àndal nañu yéene le 17 le 17 novembre ñu jox merci beaucoup Serigne Fallou Fall maire bu Ndiéyène Sirakh dañuy jox kàddu gi dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moom mooy maire bu Thiès Est di Ousmane Diagne Momit it mu ñëw yëkkati ay kàddoom salaamaaleykum wa Thiès ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu la délégation le PASTEF, conduit par le président Ousmane Sonko, il nous, a mu àndal ci délégation bi Il il est un aussi qui, sant ci honneur bi ñu def di la campagne électorale ci Thiès le président Ousmane Sonko avec sa délégation Il nous, mon frère et ami le ministre Biram Souley responsable départemental de PASTEF président Ousmane Soko, Lila la waa nous di wax rek nous ñun kenn gagné élection dem nañu locale à Nous ñu gagné ko ñu dem élection législative gagné ko dem élection présidentielle gagné ko et l'eau nous ñu mooy une présence permanente et visible sur le terrain Dembou, bi ñuy les investis le président Mamadou Diop de nga xamante ni expérience politique am kenn dootu ko natable daf ko wax a ni enjeu pour élection bi enjeu pour élection bi nekkul rek ñu fal Amadou Ba ak ñi mu àndal liste départementale du député enjeu élection bi Moi à Thiès dans le département de Thiès nous déf une participation exceptionnelle Nous gagnons une victoire écrasante pour que nous nekk ci liste nationale bi yépp wa Thiès mën na a ñu ànd ak ñom nekk ay député dama je crois que le mbir mi commencé ba légui bi projet bi tegoowee ba légui wa Pastef ak ñi bi les stratégies yi nga le président Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñu ngi koy teg njiit nag dañu kenn du ko jiital di ko fakastal boobu ba léegi mu ngi teg ay stratégie muy réussir donc il faut avoir foi au président Ousmane Sonko avoir foi aux stratégies yi nga xamante ni elles ont toujours été des stratégies gagnantes ñu ngi wax waa Thiès yëpp

Abdoulaye Mao. mon également, il va parler au nom des alliés. Abdoulaye Mao, s'il est disponible, Donc, il faut que les gens... vous dites le cadre. Abdoulaye Falmao. Mao. kon mbokk yi ñu jox kàddu bi ki également c'est notre allié te mu jiite la ville de Thiès le docteur Baba Diop. je voudrais nous, le président Ousmane Sonko, premier ministre de la République du Sénégal, tête de liste de la liste PASTEF et tous les membres de la délégation du Kogungé, une Fi campagne électorale pour une majorité éclatante au soir du 17 novembre ko le 24 mars Sénégal dafa jënd auto bu teg ci teg ko ci loxo président Bassirou Diomaye Diakhar Faye oto bi baax na marque bi baax na chauffeur carte grise bi baax na waaye am na lu des lu des laaj leen ma lu des li des mooy quand Dieu donne un véhicule il donne le carburant li des mooy carburant bi pour oto bi mën a daw ñun ñëpp ñu dugg ci oto bi ba Sénégal développé carburant boobu moi assemblée nationale pour que le président de la république et son gouvernement soient en mesure de mener toutes les réformes nécessaires il lui faut une majorité à l'assemblée nationale c'est pourquoi nous demandons ici à Thiès au peuple de Thiès, aux femmes de Thiès, à la jeunesse de Thiès, aux étudiants de Thiès, aux ouvriers de Thiès, de voter massivement la liste Pasteur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Baba Diop maire de la ville léegi dañuy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

mom moy Biram Souleye Diop waye Biram sa jigen Zahra mo fi wara waxal jigen ni dama tudd sa tour ba pare sama xel dem ci mom ma sigi mu ma man problème amna Zahra kat non biram bul dem Zahra day ñëw rek tey discours am bu paree jox biram mu continuer kon Zahra ñëwal nga ànd ak ki nga xamante ne moom mooy biram Souleye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 waaye la ëpp rek mën na ahlul quran may sant nag sama càmmeñ biram lay jóob mii nga xam ne macha allah ku ñeme Cees ba am fit ba ñu respecté la rek moom mii moo la déy waaye ki nga xam ne mooy suñu tête de liste damay wax ci moom di Amadou Ba tàccu leen ko dama ne ñun dañoo am tête de liste bu maîtriser assemblée nationale tête de bu maîtriser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 gisuma leen gisuma leen gisuma leen gisuma leen ma wax leen benn mbir président Ousmane Sonko daf ñu doon testé daf ñoo bett mais Amadou Ba bu baax bi bu baax bi Amadou Ba tax na ñëpp Ousmane Sonko bu yee woon fajar ne damay ñëw Thiès 7 di du matin lii la fiy fekk ñun Thiès pare nañu ba pare wax naa ko sànq dama ni ñun 150 députés doyuñu 150 députés doyuñu li ma bëgg mooy le 17 novembre. fii jaarale woon gars yi élection locale jaar fa élection législative jaar fa présidentielle nañ fa jaaraat parce que alkaati yi ci Pastef baye ñu bàyyi dóori ci urne yi alkaati yi ci biir Pastef du ci urne yi Amadou ak les quatorze personnes yi nga xam ne ñoo bokk ci liste dëkk ci titulaire comme suppléant li va wax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 Birame Souleye Diop léegi nag mbokk yi war a jël kàddu du ma wax turam mais damay ànd ak Déthié mu ànd ak yéen ngeen xam kan war a jël kàddu gi. jërëjëf les gars xol yëpp neex nañu. dañuy yàlla mu gunge ba ca càppandaw ga yëf yi moom la ñuy continuer di ko wax ci sunu woy te ku ci noon ñaawoon te metti woon li fi gaa yi jikkoo woon jikko ju nu nëbbul woon kon du yomb benn yoon ndax ñi fi toog gis nga noog suñu teel Sénégal lañu voteel le 17 incha allahu rabbi pour que Sénégal tegu ci bras yi nga xam ni ñun ñëpp dañ ciy gis suñu bopp. jub jubbanti teg ci nag di lijjanti. ñu dem ba ñëpp jot. ndeysaan bu ma sukkandikoo léegi ci suma giraas yi li wax moo tax ma ni fàttaliku baax na. lolu le peuple la refuse jugeons tous les tyrans qui de nos droits s'amusent et jouissent de ruses et de plans désévoltes contre nos pères nos mères nos enfants en révolte président Sonko fi nga ñu teg foofu la ñoo ngi ciy gis suñu bopp te am na du yaakaar waaye nag may sugal sama mag ju ak moom te dégg li muy wax saa su ne ci président moo tax ma seede lii ci mbooloo mi di nuyu nag mbooleem autorité yi fi teew Amadou Ba Mathia Seck léegi nag mbokk yi ki ñuy jox mbokk Amadou Ba la nekkoon waaye il y tenu parce que dafa wax ni projet soox ñu jàppale ko mu déposé bu jàtte ambulance ñëpp si moom Amadou Ba muy toog Ndefleng ndëbal jox nañ ma ko sànq sax man maa ko fàtteeti woon benn kilifa boo xam ni Pastef mi ngi dem élection en 2017 ci li nga xamante ne moom mooy coalition Ndawi Askan Wi tête de liste ba nekkoon ki nga xamante ne moom qui fait fait le président de Pastef Ousmane Sonko avons un bon candidat avec 37 000 voix ñu le plus fort reste et le plus fort est resté parce qu'il est là. Comme, en 2017 nous avons parce que une histoire avons un parti depuis que Pastef existe presque mësatuñoo ñoom demal élection sans dañuy ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Pastef à travers le président Ousmane Sonko jébbal ko wóolu ko na ko yéewóolu ci réew mi parti boobu moom mooy MRDS yàlla dafa def nag ki nga xamante ne moo ko jiite woon ci jamono jooju yàlla sax daf maa dimbali ñoo bokk koñ suñu kër yi diggante saam muy Mouhamed Sall ñu toog fii face ouest kon moom la ñuy jox kaddu bi d'abord avant ñoo dellu si ci ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba

le minimum bi ñu ko amal mooy sant ko du fond du cœur na jamono xam ni ñëpp nañu ngir lan ci koo xam dafa set jub nekk ci jubal li waa tëdd sa départemental la avant ñu may ñu mën a taxaw fii di wax ku xalaat daaw ci heure bi ndax projet bi jaral na leen foog ma xam ndax projet bii ngeen di porté que de Thiès de Pastef Thiès yi nga xam ni ñoom ñoo ñu wóolu jiital ñu fii tey jii ñu ci njëkkee le ministre Birame Souleye Diop mu melni président la un long chemin tous les coordonnateurs toutes les sections du département moom ñoo liggéey ba nga campagne tous nos alliés di remercier le maire de la ville Babacar Diop le maire de Thiès Est

des femmes de Thiès ñu investir ko ci liste nationale muy Marema Ndiaye may woo may woo Benjamin nekk étudiante mi teewoon waa Touba Toul tin mu joge ci Fandène di woo ñaaña jéeju bu Thiès Nord di woo soxna jaara ndooy yéen ñëpp ngeen xam ko muy monsieur le maire wala l'ex maire adjoint monsieur Amadou Dia. di wax ni bu ñu nekkee ay ndaw dañoo booleeg mag yoo xam ni ñoo ñuy tette di woo le doyen Ablaye Faye mu représenter tout le Diobass. di woo le coordonnateur Cheikh sis di woo monsieur Mohamed Sall Mou MRDS nga xam ni ñëpp ñoo nekk aussi le mouvement des transporteurs C'est bien facile. di les transporteurs ngeen gis ni ñëpp si c'est bon hein? Abdou Sen. Faye sañ sañ sañ Abdou sañ sañ Abdou sañ Abdou yegsi donc nous, le président Ousmane Sonko booleel pour nous dem à la conquête du département ñuy wax ni ce fut un long chemin pour nous, yegsi et il faut nous mériter cette confiance président Ousmane Sonko Thiès dafa qui a sonn ci politique Thiès le pays le prix du sang fay politique

dëkku bañkat la nañ leen ko nasaxal économiquement ñu toog ñun ñëpp di seetaan li ñu amoon ci floron muy les chemins de fer ñu toog ñu dépassé ko wanteer ko tas tas le symbole de Thiès mu nas mu naax saay ñu pare dindi le bassin industriel le tissu industriel ak les bassins d'emploi muy NSTS bii bu ñu amoon ba nga xam ni tey président Sonko c'est la ville la région l'une des régions les plus riches du Sénégal ville tabax Thiès moo la jox ciment C'est la ko am di di jox Sénégal Mini Thiès la ñu nekk yàlla baaxee ñu pétrole fee ci Kayar des richesse yi nga xam ni Sénégal, C'est Thiès da ngay qui ni Qatar a Sénégal.

likoy jeexal ñetti mbir la bi gënon am solo moy ñu dag bob bi waye ñu ne dañoo bëgg a waat ñu ne dédé ñu def ñaari pôle ci opposition Macky Sall ki ñoñam déggul Sénégal da xif da mar moo tax mu bëgg ñëwaat nee nañ ñoom ak ñi mu àndal ak Amadou Ba et consort nee nañ dañoo bëgg alal ji ñu sacc ci réew mi ñu xamni yoon war na leena tongal fu ñu làqatu mu genn leen ñu ne dañuy dellu ci ñi ñu sàccoon pour ñun làq leen kenn musul gis loolu ci àddina sàcc boo xam ni day dem ci kër kamu sàcc ni ko nëbb ma bañ maa jàpp loolu la ñuy woo ñoo lànk bu ñu joxee alal duñ ko jël ñoo ko lànk kenn sàcc suñu alal ba pare

ñu dund subvention yi ñu def ci énergie ak produit ndax réew mi nërmeelu lii mooy projet opposition est-ce que war ngeen a bàyyi opposition bi di dem assemblée ba fay am majorité ñun ay député lañ yoo xam ni bu ñu toogee ak suñu kilifa président Ousmane Sonko ak ministre yi nekk suñu ginnaaw di liggéey liggéey bu am solo dañ leen bëgg a wax ban yoon la ñuy jaar ci suqali Thiès dama ni Thiès dafa war a am hôpital bu bees ñëpp xam nañ ko hôpital régional mënatul yore Thiès xam nañ ni raay bi dafa war a dekkiwaat fii ci Thiès xam nañ ni suñu mbuurkaat bii nga xam ni moo ñu dese ñun amatuñu armeel ñun booy dugg si Thiès amuñu fu ñu tuur suñuy mbalit xam ngeen ni fii mënul nekk décharge xam ngeen ni soxla nañ ay lycée yu bees xam nañ ni dafa bëri ay quartier yoo xam ni kenn lotiiru ko

projet bi ñu am du am majorité assemblée dañoo war a déjjati benn système maa ngi koy wax bopp bi dagg na mais day jebbi wa pour mu bañ a jebbi nag bu ñu dem ñoom assemblée foog ñu nangu ci ñoom assemblée bi système bi mën fee jóge ci lu gën a gaaw yàlla nañu yàlla may campagne jàmm na ngeen ko tas ñëpp xam ko suñu but du élire ñii mooy élire suffisamment de monde pour ña nekk ca liste nationale ba loo bokk Pastef loo sori sori ñu fal la ba ñii ilaa yow mi diin dootuñu taxaw Sénégal maa ngi leen di remercier di leen jëloon jërë ngeen mbokk yi xam ngeen ne ñoo ngi ci mois d'octobre tax na ci liggéey bi nga xamante ne ba tey Pastef bi mu koy def sax jotagul ci li nga xamante ne moom mooy nguur tey jii nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy def VMP rose ngir dem jàppale jigéen ñi ci test yi am na fi ñoom ñooy camion blindé boobu nga xamante ne yéen a ngi koy gis dirigé par le docteur Mordjani. Diagne kon loolu également dañ koy rafetlu les transporteurs également nous également nous nañu ñi ngi fii ñoo ngi koy rafetlu Wa Pastef Tiwawan, on nous annonce également que nous tamit ñi ngi fi léegi nag dañ leen di bàyyi jël photo ak tête de liste nationale Jakarta maa ni également ñoo ngi may xam ne ñu ngi fii kon les investis dañuy jël photo ak la tête nationale Ousmane Sonko mbokk yi dafa am lu am solo loo xamante ne bi nga xamante ne préparé nañu pour def li nga xamante ne moom mooy suñu campagne législative moom lañ ñu woo te am ci loo xam ne. bees da ngeen a yàkkamti bu ngeen ma yàkkalul rek maa ngi ñëw ci yéen maa ngi ñëw ci yéen may wax ne parce que dafa am lu am solo loo xam ne faw ñu wax leen dañoo bëgg bu président Ousmane Sonko jëlee kàddu ba pare képp kenn ci yéen boo duggee sa koñ kër bu duggul nga mën a wax as tuut ci li nga xamante ne moom mooy référentiel parce que gis ngeen mbokk yi taw ngeen askan wi ngeen jël référentiel bi def ko seen moomeel dégg ko xam ko ba mën koo défendre saa ne parce loolu mooy yoon wi nga xamante ne fa la ñuy jaar ngir suqali senegal te référentiel boobu quatre axes la quatre axes yooyu laa leen di jox bu leen ko joxee ba pare nag jël micro jox ko kilifa gi nga xamante ne sans doute mbooloo mi yëpp moom la ñu déglu quatre axes yooyu ban la.

te ñii bu ñu président Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne moom le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu def ci liggéey bi muccu ayib donc là également c'est important il fallait que nous wax len ko je dis que muurkat kessé muurkat kep suufal ce dossier kessé dayoon na sëkk ngir ñu doxalaat cadre bi ki nga xamante ne moy président Ousmane Sonko ngir am majorité à l'Assemblée nationale vous boo jógee que vous dem fële nga capital humain qualité et équité sociale Vous de am na lu santé de infrastructure yu la formation de la jeunesse ñu am autant d'écoles de formation loolu vous, permettre à ce que une bonne formation mais aussi ñu une adéquation entre la formation

jël ben auto bo xamantene auto oto bi la né da koy campagne lool moy bonne gouvernance ken sañu cee jël carburant bo xamantene carburant nguur bi la né da koy campagne lool moy bonne gouvernance wayé li ñu dem té Mamadou Dia waxon ko té né mom la béré won Senghor moy dafa gënné Sénégal yoon wi ñu wara mëna jël mëna servir de tâche d'huile ba yeneen dëkk yi nga xamante ñoo nekk Afrique yépp mën ko top moy sen yoonu développement li moy projet bi nga xamantene moy référentiel bi présenté té kilifa gi war kon damay jël cadeau gi jox ko ko mu mën ko yaatal président Ousmane cette jeunesse là la jeunesse de Thiès la jeunesse de département de Thiès lay sargal nañu bëgg nañu di ñëw bi nga xamantene le nga ko campagne bi Thiès kon dañuy jël je gi buñ ma joxé voilà mi ngi ak moom kon président Ousmane kàddu gaa ngi noonu eh, eh, eh, ana ei, ana Tafsi na Tafsi tàkk ma seen si kaw est-ce que ça va Alfamin Sengkong jërëjëf Ousmane Sonko mbokk yi assalaamu leen di mën naa wax ni kenn ëppale bëggoon ñu waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu door tey jii su ma limee rek dinaa juum waaye képp ku fi kilifa diine ak foo bokk ñu ngi lay ziar di la nuyu di la jox sa maire d'arrondissement di nuyu nag ànd ngi commencé yàgg te lépp ñu teg ko ci bëgg réew mi mooy ñi fi jël kon maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di jottali nag ko tudd ci cëru président la république cadre boobu waaye dama ko tudd ci cëru militant wu parti bi nga xam ne fee nekk ci jamono ji di arabi Saoudite bu loolu weesoo nag mbokk yi senegal dafa di réew bu doy waar yàlla def nag ñu nekk ci jamono média ba gaay ku xëy rek bu la leeree ni ñaari nit toppuñu la bo demé ci djéba ci média ñu ta waaye nak jamono dëgg bu jotee té ci lañu nekk tay ji kenn ku né dina xam lu mu tekki ci nak aduna bi yépp ku sétane premier journée de campagne bi nga xol li xew Sénégal force passive gaa seen morom de. moo tax ñu war a tey te ànd ak dal ndax am na ku ko wax fii léegi daf nañ ni seen politik yépp ñu ngi ko lal ci wax ju ñaaw sosal nit sosal gouvernement violence verbale di waajal sax ñenn ñi violence physique ndax lu ñu pexe rek ku jàpp ni di nga xëy campagne électorale pré campagne suba ba ngoon jot sa thème yépp mooy am Sonko li nga xam ne loolu du fay gis nga politique li mooy nu nit bañ bañ Pastef war nga koo nangul nii lu nit bañ bañ Pastef war nga koo nangul ni bañ a duggee ci politik pêche ci politique agricole ak yeneen ak ci la commencé nekk un débat kon nag loolu bu démb bi ñuy nekk opposition lañ ko mënoon baax na ndax politique nag loolu da cee bokk kenn ku ci jëlee fekk réew mi ak fa ko bëgg a jëmale wala ñuy woote seen bopp opposition ndax keroog la 17 bu soobee yàlla xam ne opposition amu fi mel ni ay rab yu ñu firi te nag def jombe bu la neex dañuy faagagal ñu défendre suñu bopp ñoo xëy rek dem songu nit ñi waaye tey lan nga gis ñoo xam ne xëy suba bëggoon jot ne tey ma songu waaye tey am na ñu ci ne ndax mbir mi du course de vitesse course de fond la daw mel ni kuy daw 100 mètres ngay def premier 400 mètres toog ci xorom waaye lii taxu moo la jóg dañ leen waxoon ne da nga koy ñunu ko ko pour mu gën a saf defe ca la coow la jeexee amatuñu lu ñuy wax lu dul ay xaw na niroog PSE jegewul sax PSE muy benn pàcc bu am solo président mon décret la am décret du domaine de la loi ak lan du domaine du décret Quand décret nous limite il faut budget ba l'Assemblée. assemblée nationale fonction de représentation assemblée nationale Vous privilège juridictionnel dañ tribunaux assemblée nationale Nous bëgg ngeen Sénégal kon yi pour président Bassirou Diomaye ak gouvernement am li nga xam nun nag dañu bëgg ñoom lii rëcc ci ñoom dugg assemblée kon loolu faw rek ñu complété ko mais ma woon nag campagne bi dañu fas yéene ñëw bi wax na leen les grands axes dama bëgg ñi dégloonte bu baax ndax am na solo dama bëgg ñi bu boobaa bu ñu waxee ñu ne d'accord nañu dañu tëgg mu am bu nord am bu nord est am bu centre nord am bu centre bu ngeen gisee tuddee guñu pôle yu bari dañu bëgg suñu boo demee vers le sud mën nga ne dama ko bëgg a tuddee bundu waaye bundu benn la ci royaume yi fi nekkoon waaye am na beneen bu nekkoon à côté fii boo ñëwee mën nga ne dama bëgg a tuddee Kayoor waaye nañ la ne région Thiès dafa dem ba laal peut benn partie ci Jamkéen wala Bawol de quoi amna tout ci Bawol motax ñu né dénomination dañ ci waxtaan après waaye li ma bëgg ngeen japp rek moy 8 pôle mané won nak fuma dem faaw ma wax ak wa pôle bobu lan moy jukki ñuy jukki ci lañ foor a ma évacuer ñaar ba ñetti doléances yo xamné dégg naa ko tey ci caravane yi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 nag ne ma ne ma kenn ci seen kilifa yu mag yi opposition bi daf ko woo jox ko xaalis bu bari ne ko góor gi nekk ba bërëb sàngam dégg naa xam-xam bu dul jeex la yor te lu mu defar mu sotti xam ngeen li ma bëgg na ma bëgg nga demal joxal ma ko xaalis bi yëpp xam nga li ma bëgg na fexe ba tàqale diggante Ousmane Sonko ak jeunesse bi. <laughs> motax motax sen tax yep moy lañ leen diggoon defuñu ko amu leen liggéey léeg dama ne xam nga ñom buñu yaqé réew mi pendant 64 ans 64 ans ay génération génération succédé wu liggéey néew fi chômage bi bëri fi ndol gi kenn xamul nu mu toll nun buñu ñëwé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 te di ngeen gis meññ bi Je juróomi at ma bëgg leen wax lu tuuti ci yeneen jàmbat yi nga xam ko sama discours waaye ci beneen jàmbat bu ndaw bi rek li nga ne cotisation les travailleurs des chemins de fer am nañ ko saisir nañu ci ci fan yi bu

ak bi nga xam ne mooy souveraineté nationale ci ñaar yooyu lima ci bëgg a wax mooy dañ leen wax ni bi ñu jëlee réew mi malheureusement fi écran yi ni ñu féetee bi nekk ci moo tax du ngeen ko gis waaye bi ñu jëlee réew mi ñett ñu jël parti ouest bi mooy nga tracé ko ci kaw ba ci suuf nag nga jël parti centre bi ouest bi moom mi ngi représenté 46 pour cent ci koom-koomu réew mi nga avons ne matul 0,05% du territoire national parti centre bi mot 45% de l'économie. ci économie bi partie sud ak sud-est sud-est est bi ak sud-est mi ngi représenté 9% nationale territorial inéquité territoriale ci développement réew nag boo ko bëggee développé faw rek nga fexe mu am pôle yu bari te pôle bu nek am kom gu doy go mën dëkk suñu premier pari ci suñu politique de développement bo jëlé fi ñu ñu Thiès pôle Thiès un peu moins de 8% ci PIB économie nationale loolu tuuti na te wax na ko légui capacité yi am fii kenn xamul nu mu toll moo tax nag ci suñu programme ñu ne faw rek ñu jóg ci mbir moomu Thiès am na phosphate am na zircon Thiès am na suuf su nangu ci zone des Niayes bi mais ci yeneen zone yëpp loo fi bay mu nangu Thiès am na accès à la mer ak ay infrastructure portuaire fu mel ni Kayar ak feneen ak feneen kon booy seet ci pôle yi dafa melni ni Thiès Thiès am capacité touristique suma né nee Thiès région bi la wax Mbour a ci Tivaouane a ngi ci comprendre li ma wax pôle de développement lañ leen wax bo jëlee pôle de développement bi mo duggal Mbour mo duggal Tivaouane mo duggal Thiès kon capacité ba wax dafa bolé loolu yépp wa lan motax tay mënu ñoo fexé ba loolu mu jëriñ waa Thiès jëriñ waa senegal léegi dañ ma wax am nañu fi tudd waxum ICS tey wax nañ ma ko bi ma jaaree Taïba am na yoo xam ne mënul mënuñu ko nangu est-ce que xam ngeen ni bëgguma sax mu mel ni damay singali benn entreprise waaye nag dañ leen yàgg wax ni alalu réew mi il faut ñu téye ko ci réew mi boo jëlee lu mel ni ICS ñetti convention lañ ko signé ñett de 1984 à maintenant mooy la seule entreprise bu am ñetti convention ñu jox ko ay avantages avantage xam ne du fay benn impôt benn impôt benn impôt du ko fay ba ñekk ba ma defee calcul ci ñeenti at yi weesu li ma waroon fay impôt rek mat na 150 milliards yoo xam ne nee na France benn impôt du ko fay nga dellu siwaat ñu ne la redevance yi nga xam ne sax dañ dañ ko ne mu fay ko tey ministre bi yor loolu mi ngi fii waa Ceesa di Birame Souleye bi ñu toogee la leen bind ne leen ameel ngeen ñu un milliard cinq cent de redevance leen ko war a fay ñu lànk ne duñ ko fay ba tey ji waaye mag mag cent quatre-vingt-quatorze milliards jum naa sax cent onze milliards ñu ne duñ ko fay waye ma garal leen dañ ko fay parce que rew mi nak dafa am borom borom rew mi moy wa senegal nga ci wat ñu ne la phosphate biñ fi def di ko transformer engrais lepp dañ koy génné pratiquement yobbu ko ñom sen rew ba ñun suñu mbay nga xam soxna na engrais mënuñoo am engrais bu doy dañuy dem di jéggani engrais diko ko importer lolu yoon la Non nous sommes la amé ci ñeneen ñun président nangul mako moy ñu taxawal benn couleur bo xamné mom la commission de relecture des conventions et des contrats commission bobu ngi liggéey fi ci primature amul benn secteur bo xamné dina ci mucc du pétrole du gaz du phosphate du zircon du accord de pêche du infrastructure les dinañ ko luñetu ba mat lepp luñ ci deful ci intérêt Sénégal mo wax ko fi dinañ ba a jaadu wut ñëw leen ñu waxtaan su ngeen d'accord ñu waxtaan su ngeen d'accordul nak dinañu xam fu jaar dinañ suñu promesse de campagne parce que xam ngeen lan moy premier dama président ko gis mandat moi voilà a mandat bu régler définitivement un de nos problèmes les plus cruciaux Moi, la question du financement de notre économie et de nos politiques de développement réew mu mënul financer ay politique am yaakaaroo lu taxawal plan jël sa avion dem ci tubaab yi di ñaanaatu ak di leb réew moomu mënul dem ci jamono joo y a yàlla may à la aral gune nga le ko c'est-à-dire Sénégal problème or amé zircon des amé pétrole ce des nga gi ba est-ce que premier problème régler la question du financement de notre économie

li ñu am xam-xam rek ñoko xam limay wax ni bu ngeen ma dégloo comprendre ko te xam naa ni comprendre ngeen ko dañ leen génneel ay axe mais axe yooyu dañ koy lal ci ay filières yu ñuy développé parce que Sénégal amul benn filière boo xam ne am na chaîne de valeur complète chaîne de valeur complète mooy depuis extraction bi wala bu dee mbay mi depuis buñ koy bay buñ koy transformé ba ñu koy commercialiser amul benn benn Sénégal boo xam ne mun nga ko jël nga ne am nga chaîne de valeur réew mu mel noonu nag réew mu amul koom-koom amul économie ñun nag suñu mandat dañu ne ñun li ñu jitteel mooy tabax économie d'abord parce que boo tabaxee économie ba sa mbay dox sa càmm dox say ressources naturelles nga téye ko ci réew mi fii am na gaz ñun biñ ñëwee liñ fi fekk nee nañu gaz bi signé nañu ay accord dañ koy liquéfier mooy dañ koy def liquide def ko ci ay bateau nous ko dem jaayi ko bi ñëwee dañ un ñun du suñu option gaz bi dañuy def pipeline jël liñ ci soxla andi ko transformer ko Sénégal parce que à l'horizon 2050 on a 1900 1900 kilowatts le Sénégal de produire à l'échelle 2050 il nous faut 10 000 kilowatts de plus donc gaz bi le mëna énergies renouvelables qui nous permettre ñu suffisamment d'énergie pour taxawal des industries ba am excédent mëna jaay énergie yeneen réew lañ koy ñi def am ko il faut ñu tabax ko pôle bu pôle bu nekk potentiel ñu ne filière yi ñi tabax fofu lañ koy tabaxé fi Thiès suma né nee Thiès nag waa Mbour yi di wax Mbour ci Thiès sa bok région bi la wax ñu ne Thiès lan moy ay filière yi nga xamné ne mën nañ ko fi def ci lu gaaw gaaw mu jëriñ réew mi bu ci ñëk moy filière des cultures maraîchères ko wax maraîchage wax Thiès waye maraîchage bi soxé na lu bari dañuy dañuy tour ji bi dañuy tour récolte bi fi parce que amuñu sax des chaînes de stockage ou de conservation Nous bi filière manioc wala filière horticole de manière générale Nous Thiès ñëpp xam ni potentiel bi mu am war nañ développer fi ben filière bo filière matériaux de construction la su ma matériaux de construction nak du ciment bi rek defe région de Thiès amna au moins ben cimenterie wala ñaar

ak yenen ak yenen motax mané filière matériaux de construction suñu né filière phosphate fertilisant lolou yàgg na am Sénégal waaye dafa melni bu njëkk ba sax amon nañu ICS dem ba am Senchim ñu fexe baray Senchim defaratuñu engrais ñu dara da def ay accord jël ICS tayle ko jox ko wa bitim réew ñuy jël lépp di yobbu kon su ma leen nee loolu dinañ ko renégocier te ci fan yi dinañ leen woo ñu ñëw toog bu ñu paree càmbar gi filière boobu bokk na ci filière yi gën a gaaw a développé Sénégal te ñu am ko fii am ko maatam am ko Daaru mussi muy phosphate boo xam ne phosphate de qualité la est-ce que xam ngeen ni Maroc phosphate moo ko développé Maroc amul pétrole amul gaz amul amul amul waaye bi ñu toogee ba ñoom gis nii te ñii ñu jox tey ICS est-ce que xam savez ni ñoom ñoo phosphate du Maroc bi waaye marocain bi ñu toogee ba roi bi gis ni lii baaxul ci ñun daf leen fa jëlee nationaliser euh, euh, euh, phosphate bi le premier facteur économique ba ñu tabax ci l'université université technique mooy phosphate l'office chérifien du phosphate c'est l'une des plus grandes entreprises d'Afrique aujourd'hui ñun avons phosphate depuis longtemps C'est le ko ñu koy ci filière phosphate et fertilisant filière industrie du verre ndax zircon ngi fi ak leneen ak leneen et enfin tourisme su ñu nee tourisme nag ñëpp dañuy jàpp tourisme balnéaire rek ndax Salé ngi fii ci biir Thiès waaye am aussi le tourisme religieux ndax Thiès dëkku diine la Tivaouane a ngi fii Ndiassane a ngi fii Thiénaba a ngi fii Kër Maam Alaaji a ngi ak feneen ak feneen kon war nañ ko fee mën a def kon Thiès it mu am lu ñu fi démarré te ñun ñu bëgg koo accéléré mooy plateforme logistique et hub aéroportuaire ndax soo bëggee def port de Ndayane ak port de Bargny lay logique mooy nga fexe ba benn pôle urbain daal di soqiku ci gannaawam muy un des projets importants industrie extractive et manufacturière nouvelle ville pétrochimique parce que vous savez, nous avons le gis nga pétrole ak gaz Nous mel le pétrole les produits wax produit dérivé du pétrole ont ëpp valeur fouf sax yenn de pétrole bi ci suivi l'évolution kuy suivre évolution savez que le pétrole mi ngi baissé gaz gi mo ëpp valeur le pétrole ce li nga pouvez a que le pétrochimie à partir du pétrole et du gaz

Fram Fatcheko, qui, ci master plan 2034 voyez la ci des échéance de 10 ans 10 ans 10 ans Ce qui est le liggéey la ci anam nous population bi comprendre nous nous bëgg nous jëm ñu parce que la femme lu a jeex ci réew mi fal raxas si dem toog ne sama yoon new ci na ma réglé lu ma lekk ak lu ma naan waaye sama yoon new ci déedéet réew dafa am nu muy doxee dama wax léegi problème financement réew fan lay jëlee lu koy doxal li ñu dañ naan état état état état président Bassirou Diomaye fay yorul lu mu mën a dundalee fukk ci yéen sax waxuma laa lu mu gérer problème yëpp waaye état dafa am fu muy jëlee ay revenu bu ci njëkk mooy l'impôt l'impôt boobu nag nañ ci def réforme nañ ci def réforme ci fan yii ndax dama wax ni lempo gi gën ci lempo gi mooy bi nga xam ne lañuy ñuy fayeeku yemamaay na waaye ñëpp daje fay ko moo gën nga jël ay too yu kawe te ñenn rek a koy fay waaye bi ci njëkk mooy lempo réew mi la gën a mën a fay lempo moo la ëpp capacité ñaareel bi moy li nga xamné moy mooy li la yàlla wërsëgale ci ressource naturelle nga géré ko bu baax ñettel bi waron doon lool sax du levier de financement ci boppam waye mën na jappalé économie moy nga am sa monnaie bo mën a gérer mu mengo ak sa économie lool ci li ñuy financer réew la ñettel bi moy li nga mëna jëlé ci contribution yi jóge ci les ressources longues comme li nek ci IPRES wala caisse sécurité sociale yu demee non ñu utiliser ko wala li ngay ubbi té temps yi nañ ko def nak moy li ngay ubbi né sénégalais yi ah man dé bëgg naa defar telle infrastructure bëgguma ko lebe ci biti waaye damay émettre li ñuy wax patriote bond yéen gi dégg ay euro bond ñun bëgguñu koo jële ci Europe patriote bond la bëgg bëgg naa cinq milliards yow waa diaspora yow mi ne Sénégal yow ak yow ak yow léeg-léeg mu ne infrastructure yoo xam ne dangay dugal sa xaalis mu jur ñu delloo la sa xaalis kon lii bokk na ci li ñuy financer économie bor doog a ñëw nag dem di lebi ci feneen fu bokkul ak foofu waaye yi ma njëkk a tënk yëpp kan moo koy doxal citoyen bi moo koy doxal am na ku ne léegi nañu créer emploi xam nga emploi lu koy créer état nu mu bëgg a bëgg la jël dafa am fu mu yem masse salariale bi li ñuy salaire état di ko fay dépassé na 50 du budget bi kon lan moo des pour nga tabax ay école nga tabax ay industrie première vocation état du employé waaye état day créer les conditions pour ay entreprise juddu entreprise yooyu créer des emplois ci loolu la ñu Quand fi bëgg jëm fi que bëgg jëm leer na naññ ci suñu bopp te nañ fa yegg bu soobé yalla wayé on a besoin de chacun et de chacune d'entre vous pour commencer à commencé une jox ñu majorité absolue écrasante à l'Assemblée nationale <coughs> L'état nak li tax citoyens yi citoyens Sénégal bañul bañul contribuer li koy li koy firndeel benn bokk na ci mooy tey Pastef saa yi wootee ñu wuyu ko keroog Dakar Dakar Arena benn bés rek cinq cent vingt cinq millions lañ fa levé kon citoyens yi bañu joxe ku fi sa daayira nga joxe ku fi sa sëriñ xewle nga joxe ku fi euh, sa sa région wala sa sa sa village xewle nga joxe kon bañu ñu joxe li tax ñu bañ a joxe su dee impôt parce que citoyen bi gëm na ni limay joxé ci ëpp ay politiciens ñokoy sen poste tax citoyen yi ñu ci ma assurer quelque chose Je leen ko fi billahi wallahi xam ngeen lu ma bëgg ngeen xam xanaa xanaa ñun lu ñu xamul ñun lu ñu xamul man lu ma yéegul chaque jour ma wax ko du menace nag ministre ak directeur général ak directeur ak chef d'agence ak ku ma yéeg ni jël nga fukki dërëm boo moomut noo seulement doo yendu foofu waaye di nga ko layoog yoon te lii ma wax nii maa ci gën a tuuti dangar ndax xam naa fi mu toll président Bassirou Diomaye Faye man xam naa ko réew li koy defar mooy alalu mbooloo nañ ko bàyyi mu dellu ci mbooloo mi kenn ku ne dañ lay fay na la doy nga yem ci loolu waaye kenn ku ne ku ñu fal foog nga ni da nga war a nekk millionaire wala milliardaire ku bëgg loolu da dem ubbi usine dem liggéey loolu yàlla wërsëg nga xam ni lii la fonction publique milliard milliardaire fonction publique président de la république ne 4 millions 800 lay man 4 millions 300 lay ay milliardaire kon ku taxaw yor ay li xew ci réew mi ba moo wax lu gën a gàtt est-ce que xam ngeen ni prison Rebeuss bee est xam ngeen ni jaay nañ ko prison Rebeuss te xam ngeen luñ ko jaayee huit milliards prison Rebeuss plus d'un plus hectare à Dakar nga xam ne tu gën saa gàtt mën na jar quarante milliards ñun bu ñu egsee ñoo ko bloqué ne annulé nañ ko ñoo ko annulé ma wax leen ni loolu loolu lu gàtt la de loolu xam nga Amadou Ba léegi wax na mbuurkat mais lu ne la ñu jaay gis ngeen prison Cap Manuel bi nga xam ne man fa laa woon bi ñu génnee ba la jox ñu nguur bi bañ ma àndile kayit yi ma xool ndekete jaayoon nañu prison Cap Manuel ba toog man xam naa dañ ma naroon jaayaale gars yi yóbbaale moo tax motax gis ngeen wax ji bari na gis ngeen wax ji bari na wax ji bari na waye xam ngeen lu andi wax ji moy titangé ak ragal parce que kenn ku ne ci ñom xam na nyinak. def té ñu nañu nak bu ñeen bu mandat ba dem assemblée nationale raw nañu déedéet ndax bu ngeen ñi joxee li ngeen ñi jox muy majorité absolue écrasante ku fi luubaloon te ñew nek député ci benn fan la téggi sa sa immunité parlementaire nga dem lay ko loolu yomb nañu waye yooxu beeg daw beek yépp ci pour assemblée nationale mooy jàpp nañ ni mën na leen permettre ñu dem làqu ji mbokk yi alalu réew mi loolu bokk na ci li l'un des plus grands combats yoo xam ne dañ ko war a régler am na ñoo xam ne seen benn compte rek seen benn compte seen benn compte rek fekk nañ fa lu ëpp mille milliards seen benn compte rek foog ngeen ni loolu jaadu na ci réew mi moo tax defuñu ko parce que dañoo soxor wala dañoo bëgg a lor nit waaye est-ce que d'accord ngeen loolu yëpp ñu bàyyi ko mu romb moo tax alal gi faw mu dellu si si réew mi waaye bu dellu see ba noppi kenn ku ne na xam ni dootuñu nangu ñuy dénk nit responsabilité muy randal alal réew mi moo tax pôle bii nga xam ne mooy poolu Thiès gannaaw bi ma leen waxee filière yi ci bëgg a développer potentiel bi fi am lañ ca teg mooy fenn fu ne ci dëkku Thiès yi am nañu destination buñ ko bëgg a yóbbul Thiès ci boppam ak Mbour bëgg nañu di doon des métropoles d'équilibre parce que il faut des de très grandes villes Dakar déjà métropole la mais Dakar suñ ko bëggee désengorger il faut des métropoles d'équilibre cest dëkk dire xam déjà amené nañu dayoo boo leen tout tuuti rek on nous doon à l'image d'une capitale moyenne Thiès On le ko ne Mbour mën On ko ne Tivaouane bëgg nañu mu doon une métropole régionale à la dimension de la région on donne une métropole pas à la dimension nationale Pout Kayar Mexe Khombol ak Caajaay lañu ñu bëgg a liggéey ci ñoom mooy ñu doon des villes secondaires Pout ak Pire Pire gu rëy la bëgg a ci ñoom mooy ñu doon des centres de service agricole mooy bu ñu béyee ci biir Thiès mën koo andi foofu gannaaw transformation mu doon des des des des pôles d'éclosion pour ñu distribuer à travers tout le Sénégal Kayar Taïba Mboro et Sanjara veulent nañu des centres industriels Kayar Taïba et Mboro Popenguine Taïba Nyasen, et Pointe Sarène veulent développer le tourisme tourisme barnéen et tourisme religieux également Nous la des ci dëkk yi cité centre artisanal d'excellence spécialisé dans la cordonnerie

ñun ñooy ànd liggéey ko te mi ngi jaar par une victoire écrasante ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox daj di daje une prochaine fois asalaamaaleykum wa rahmatullah